jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi fm 97.5 seen émission pencum réew mi euh, muy am samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou ma Seck Mamadou Diawa jàll moo nekk ci wàllu machine bi euh, mbokk yi tey ñu invité Ami Amel Top moom mu nekk bokk ci APR moom moo jiite jeunesse féminine bu APR jiite tamit plateforme jeune dynamique de la République Euh, nekk membre ci au conseil des collectivités territoriales nekk conseillère euh, ville de Dakar Ami Abel Top euh, Rewmi FM a ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Abdou di la remercier si. Euh, invitation bi di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu aussi suñu xalif généraux yi nga xamante ne ñooy aar réew mi di sàmm réew mi di nuyu aussi à toute la population euh, de de bi ma jógee mais aussi département de Dakar bi ma bokk la ah. jeunesse féminine ak plateforme bi wax nga ko donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am kontaan ñëw fii pour mën a waxtaan ak ah. sénégalais yi ñu dégg xam suñu voix d'accord Euh, Amy Amel euh, Top euh, présentation bi ndax mën nga si dellu si waat pour ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk auditeurs yi. waaw bala may ko wax ci présentation man ami Amel Top damay wax damay présenter samay condoléances à un frère boo xamante ne ñu ngi koy wax du Doudou Fall. bu ñu xoolee mu ngi dëkk Médina démb mu wàcc liggéey ci manifestation yooyu mm. amoon euh, ca Médina mu di jaalee euh, le maire Bamba Fall bi nga xamante ne agent wu maireem la woon di jaale aussi population Médina bi yépp mais particulièrement population euh, particulièrement la paire Médina avec mais am nañu ko tuumaal na nervi la ci ñëw parce que comme dinañ ci wax ci beneen point ah, mais comme présentation donc dama ah, doon présenter des condoléances un camarade de parti mais aussi à un, euh, un ami un frère euh, man maa ngi tudd Ami Amel Top nekk euh, xale bu jigéen. boo xamante ne dugg na ci politique. bokk euh, APR bokk APR dugg ci politique ànd ci ak sama papa sama kilifa la président Abdoulaye Diouf Sall ñëpp xam ko. moom moo ma dugal ci politique ma ànd gëm le président Macky Sall gëm vision président Macky Sall gëm Macky Sall taxawaayam ci réew mi ñu ànd ci ba fal ko en 2012. boobu ba tey nag ñu ngi ci politique bi mais en dehors politique am itam peut-être mën nañ ne banquier la parce que sama formation j'ai ma master en ma master en institution financière en même temps banque finance assurance euh, moom laa am Euh, donc di wax rek ne maa ngi dëkk Yoff jiite foofu aussi lii di jeunesse féminine bi. bu Yoff bu Yoff maa ko jiite donc jiite aussi département Dakar je suis la responsable de la jeunesse féminine donc daal di. ami top ngi waa yëngu ci wàllu jigéen ñi mais aussi jeune fille au niveau de l' alliance pour la république. ci APR nekk de Dakar yow yaay euh, yow yaa ko jiite yaay présidente bi. bu APR département de d' accord à part ça la présidente de la jeunesse féminine de l' APR au niveau national les quatorze régions du Sénégal. yaa leen jiite ñoo leen maa donc euh, récemment il une plateforme. bu ñu créé muy plateforme des jeunes filles dynamiques de la République. yoo xam ne au niveau national yaa ko jiite. moo koy d' accord waa léegi Ami euh, jiite euh, jigéenu APR yi au niveau national jiite plateforme jeune dynamique de la République au niveau national mais. Euh, plateforme jeune euh, dynamique de la république góor ak jigéen la. da nga fàtte jeunes filles sax c'est les jeunes filles parce que li ma ko waxee rek ñun ay jigéen lañ. donc góor ñi suñuy càmmiñ lañ dañuy accompagner. Ah. mais plateforme c'est la plateforme des jeunes filles dynamiques de la république. képp kuy jeune fille nekk jeune fille comme nuñ ko waxee. yaa ngi ci biir plateforme bi pour accompagner le président Macky Sall. parce que bu ñu waxee jeunesse féminine yaa ko jiite c' est l'APR mais plateforme bi aussi c' est l'APR mais dafa doon structure boo xamante ne wala benn daje boo xamante ne ay jeunes filles yoo xamante ne xamuñu lan mooy parti bi xamuñu lan mooy politique xamuñu leneen mais personne ami topp wala bëgg nañu ànd ñu liggéey donc dañu créer plateforme boobu pour boole leen dajale leen à ce que ñu mën a adhérer ci parti bi bokk ci parti bi mais c'est pour accompagner le président parce que des fois les gens disent que ne contradiction la jeunesse féminine APR nga jiite ak plateforme bi mais ça c'est autre chose je prends l'exemple de la de de de de, de la CCR CCR c'est le coordonnateur mhm. moom moo jite cadre APR mais si biir si biir parti bi y task force te bi Biram fay le ministre am boobu ma koy nuyu jiite. donc day doon euh, loo xam ndaje moo xam ne. ay ay kuréel yoo xam te ne dafay massifier mais aussi gën a yokkal. parti bi des militants mais gën a prêt à défendre le parti parce que wax nga ko tout à l'heure bi nga jugalee affiche bi mhm. jigéen ñëpp ko dugal donc am na ñoo xamante ne peut-être identifié ci APR mais mën nañu identifier ci plateforme bi te identification bi ñuy def ma di ko coordonné da leen à ce que tey bu parti bi wootee ñëpp dañu ñëw ànd liggéey pour le président Macky euh, sa liggéey euh, est du yam ci fexe ba ñu frustré dellu si ndax bëri ngeen ñu frustré trop trop trop. ci parti APR. merci beaucoup yaa ko wax mooy plateforme bi ba tey. tey bépp jeune mais euh, du ñàkk parce que parti au pouvoir moo ni mel ku ci gisul sa bopp wala kuñ ci jàppalewul am nga droit mer toog. parce que boo xeexee pour benn projet gëm projet bi jàpp ci xeexal ci le président ba tey mu tool fii fal ay nit am nañu ci jàpp nag man damay fag man duma koo xamante ne day xas de responsables non sama politique mu suma xas benn responsable parce que kenn ku ne rek yow danga koy nattee comme sa bopp donc il y aura mais ñun à notre niveau les jeunes filles ñu ngi jéem a dajale ñi frustré wa indiwaat leen tegaat leen ci raay yi xool nu ñu leen accompagner jàppale leen pour que ñun fu ñu suñu doole yamul ñu dem si des responsables à ce que ñu jàppale pour ñu mën a téye ñu mais en tout cas la plateforme bi mhm. c'est pour ñi frustré mais aussi pour massifier nit ñi à ce que ñu ñëw adhéré au niveau de la euh, dina ñëwaat bi léegi yow membre nga aussi mhm. bi nga xam ne opposition bi nee nañu euh, xaalis la yow foofu membre nga fa aussi waaw euh, man ci mandat bi laa bokk di jaale aussi maître Sey Ousmane Sey nekkoon vice président foofu ci au conseil des collectivités territoriales

pour accompagner les collectivités territoriales donc ñun suñu liggéey mooy proposer accompagner les collectivités territoriales wax présent sur un rapport annuel que ne nii ak nii boo ko defee ci domaine bépp muy santé muy jeunesse sport communication bi muy environnement muy urbanisme muy tant tant tant tant parce que y a beaucoup de commissions foofu daf ñuy permettre à ce que mhm. vraiment ñun au conseil ñu ñu ñu ñu ñu mhm. càmbar. problème mu collectivité territoriale yi. Mhm. ñu càmbar maire yi naka la ñuy doxee wala lan mooy seen ay difficulté mhm. ñu def des propositions. def rapport jox ko le président Macky Sall ne ko ah lii de boo ko defee collectivité territoriale côté ci côté peut-être mën nañu wax ci suuf si. Mhm. ni ak nii boo ko defee ñu bëri dinañ xam naka lañ ci taxawee mooy les communes les collectivités territoriales donc yaakaar na au conseil des collectivités territoriales si jours yi ñëw di gis lu changé foofu. parce que des fois les gens disent manque de communication et tout mën nañ ko wax mais nous en tant que jeunes président Macky Sall wóolu ñu teg nga fa. pour ñu liggéeyal sénégalais yi mais aussi accompagner les collectivité territoriales ci jours yi di ñëw di ngeen gis ne dinañ ci communiquer wan le peuple parce que man je parle pas de opposition moom dañuy wax rek di sànni mais peuple sénégalais bi la ñuy waxal. te ñoom euh, dëkk bi dëkk bi ni mu méttee ak dépenses yi ñu bari dañu jàppoon ne rawatina coronavirus beeg guerre Ukraine beeg euh, sénégalais yi sonn gi sonn yenn institution budgétivore yi conseil économique social environnemental ak CCT est-ce que mënuñu woon ko fee jël jël xaalis boobu mën ko dugal ci ci réew mi xam naa sax dana ñëw si njëgu yokk yeeg seen ñoom. Euh, mon mon frère ma la wax dafa leer mooy incha allah ñoom seeni wax man wax considéré ma wax bi maanaam considéré wu ma ko ci bu ñu nekkee ci état seen liggéey rapport bu ma dagg bu ma dagg bu dagg bu ma dagg may ma rapport mooy doxal réew parce que tey peut-être amuñu information yenn yi pour accompagner les collectivités territoriales mais tey rapport yooyu noonu président bu ko jëlee càmbar ka domaine bu ne dina ci am taxawaay bi mu ci war a taxaw te yaakaar naa def nañ ci ay résultat yu am solo moo tax ma ne tout à l'heure incha allahu rabbi fii nga xamante ne fan yii di ñëw di nga gis que ne vraiment le haut conseil des collectivité territoriales liggéey bi muy def am na solo et que dinañ ko wane sénégalais yi pàcc par pàcc parce que dañu fa def pour liggéey pour taxaw soxla sénégalais yi taxaw boobu ñu fa taxaw nañ ko parce que bu ñu xoolee même au niveau du haut conseil des collectivités territoriales ñu bëri ñu fa nekk de maire maires la majeure partie des membres ay maire communes lañ te foofu noonu bu ñu ñëwee dinañ fexe apporter wala joxe des propositions wala ñoom seen ay problème commune pour que ñun ñu mën ko càmbar taxaw ci bindu ko wax le président Macky Sall lii ak lii boo ko defal y a d' autres activités aussi yoo xamante ne peut être duñ parce que bi ma tey bi ma fi ñëwee c' est en tant que politique laa fi ñëwee si nga ma invité ah, mais soo ma invité non non soo ma invité en tant que technicienne wala membre ACCT dinaa ñëw avec l' appui wala l' euh, euh, nu ñu koy waxatee ndigalu suñu président euh, suñu présidente Aminata Mbengue Ndiaye indi des éléments de de langage ak des éléments de réponse pour tontu conseil di doxee. dinañ si euh, loolu lañ doon ubbee rek mais xam nga tamit euh, comme yow foofu nga bokk yaa ngi ne sànq aussi euh, xam nga yoof ngay milité aussi. Hmm, ma bokkee waaw waaw mais yoof aussi xam nga yoof moom da ngeen faa xawoon a mel ni lu xaw a néew doole. Hmm. amoon ngeen fa doole jamono ma élection locale li mu wane ak élection législative dafa mel ni opposition bi Yewwi dañoo jëloon naq leen ci biir ndox mi Abdoulaye Diouf Sarr mel ni tey dañu faa xaw a dooleem bu baax a baax ndax. après législative yi nga xam ne seen seen néew doole feeñ na fa ndax xawoon ngi xaw ngeen a euh, jugaat tuuti. waaw yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax ne eh, élection locale dañu fa door législative et tout. waaw élection locale on avait huit mille sept cent voix. leen gagné rek xaaral xaaral xaaral non mais d'accord waaw bu ma dagg may ma. a accepté défaite bi rek nag. on avait huit mille sept cent voix aux élections locales ak lu mën di am défaite ngeen fa am. aux élections législatives. Wow. on a mille et quelques voix. donc dañu yéeg. waaw wax la ñaar. waaw Abdoulaye Diouf Sarr était ministre de la pendant deux ans nekkul yoof parce que mu ngi lijjanti Covid bi. déglu ma bu baax Abdoulaye Diouf Sarr taxawaayam bi mu am yaakaar naa kenn du ko dindi deuxièmement mooy li nga wax tey jii nii Dakar ñëpp a perte mais bi bi bi bi bi ñëpp di perte yoof dafa gagné. donc am na ay jàngat yu ñu war a def ci perte bi te jàngat yooyu ñun def nañ ko te incha allah ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax du bi ñu jógee locales yi de 8700 voix aux élections législatives on est arrivé à 10 e et quelques voix boo jëlee 19 communes yu Dakar élections législatives yi Yoff li mu gagné beneen commune gagné wu ko ci voix. deuxièmement ma corriger ñenn ñi bu ñu pertee les élections les élections législatives comme locales à Yoff c'est au cité cité nouvelle yi la muy euh, euh, comment dirais-je Ouest Foire ak Nord Foire mais village bi le président Abdoulaye Diouf Sarr a gagné y compris son bureau de vote ak centre de vote am donc défaite bi ñu ñu ngi koy analyser di ko jàngat mais ñu xool ne tey man li ma ciy gën a wax mooy que ne dañu war a boole suñu ay force parce que y a des responsables à Nord Foire y a des responsables à Foire donc ñooñu noonu bu ñu boolee seen ay force rek ànd ak le président Abdoulaye Diouf ànd ak le président mais coalition Benno Bokk Yaakaar ay Yoff mu yaakaar naa ne défaite bi ñu am dinañ ko dindi man loolu lu ma gëm la parce que def nañ ci ay mais du dañu perte Yoff parce que bu ñu jëlee Yoff village on a gagné les élections mais Cité Nouvelle yi mooy suñu problème ñu ngi xool naka lañ ci liggéey ak les responsables yi nga xamante aussi il se dit responsable au niveau de ces quartiers bokk alliance pour la république ñu xool nu ñu toogee waxtaan pour mañ dem ci kanam ak élection yi ñu jëm 2024 ñu gañe waaw mais ami synthèse locale da ngeen a perte mairie bu bu yoof local euh, législatif da ngeen a perte mairie bu yoof bien vrai que wax ngeen ne yéen ngeen nag euh, andil nga ko daal yow ni nga ko argumenté selon yow ni nga ko ni nga ko bëgg a man d'accord wax lu ma wax parce que dañu am ñi ñuy waxtaan ak ñoom te ay borom xel ñoo ñuy déglu ñun dañoo am peut-être rek sens toog nii mais am na ñu ñu ëpp xel ñu ngi ñuy déglu mais dama ne on a perdu les élections locales d'accord naa on a perdu les élections législatives les 19 communes de Dakar sauf Grand Dakar mo perdre locales yi ak y' a quatre communes Grand Dakar Cambérène ak. Euh, ah, ah, Plateau d' accord naa waaw d' accord may ma terminer may ma terminer may dama ne waaw d' au niveau communal. on a les élections comme nu nga ko waxee. Mhm. mais dama la si tegal ne la perte bi ñu perte man d' accord naa ko de. mais bu ñu jëlee yoof traditionnel ba tey local laay wax de. Mhm. on a gagné les élections et Diouf Sarr a gagné son bureau de centre de vote. mais suñu problème à Yoff perte bi. Mhm. c' les cités nouvelle parce que quand on prend le cas de euh, de Foire centre bi gën a mag foofu raw nañu fa ay mille voix. Mhm. kon loolu lu koy complété di done jóge ci ci village bi. donc loolu noonu man d' accord naa mais dama ne loolu bu jàllee analyse ak synthèse bi ñu ci def mooy nañu war a boole suñu ay force gën a jàpp gën a dem. si Nord Foire ak les cités nouvelles Ouest Foire pour mën a vraiment défaite bi ñu am comme boobu loolu nga bëgg moo ko ah. défaite bi ñu am élection yii di ñëw ñu mal ko ñu gagné aayoo une minute léegi euh, Diouf Sarr après euh, législatives yi local est-ce que amul benn xaw a bàyyindiku tuuti ci ay activité politique am ci au niveau euh, national non bàyyindikuwul parce que boo demee tey pour lu ñu woote vente des cartes bi ñu defee dernière réunion bi ñu wootee age département Dakar bi ñu defee age pour wax évaluer montage comité yi Yoff moo si jël pe kon kooku bàyyi ndikuwul ko bàyyi ndiku doo monter ay comité en fait peut-être comme yenn rek meeting par si meeting par là et tout c'est important nga wane sa démonstration de force te incha allah bi ñu ngi koy waajal ay Yoff mais teewul boo jëlee ci wàllu montage comité yi wane ne base bi mu ngi dox yi wane ne politique bi mu ngi dox ci communes yi parce que nit ñi ñu ngi am engouement ñu ngi taxaw quartier par quartier di monter ay comité yaakaar naa ne Dioussaar da yoof laay wax moo ci jël pee kon kooku bàyyi ndikuwul d'accord jërëjëf euh, Amy Amel euh, Top euh, yow nga yow yaa jiite xale yi nga xam ne ñoo bokk ci uh, APR au niveau national waaye tamit yaa jiite uh, plateforme des jeunes Euh, des jeunes filles euh, dynamiques mhm. euh, de la République nga nekk membre ACCT mhm. ami ñu ñëw wax ci li nga xam ne mooy actualité bu jàmp bi mhm. muy procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang procès diffamation mu nekk loo xam ne n fois la am ci réew mi amul bruit mu nekk loo xam ne procès bu banal la war a doon sénégalais yu bëri analyste politique yu bëri gis ne dafa mel ni dañ ko bëgg jël def ko rax si politique def ko yëfu yëfu état alors que ñaari personne ñaari sénégalais lambda euh, ñoom ñoo am problème. waa merci beaucoup euh, di jaale waat rek ah suñu camarade Doudou bi wàcc liggéey Medina yaakaar naa si ah, nu ñu koy te manifestation yi la ko wàccee euh, comme nu nga ko waxee rek yaa wax yàgg na fi am am na fi nest yaa ko wax mais ku am xolu baale baale buñ ñu la diffamé maanaam tuumal la yow boo amee sa xolu baale nga baale loolu yow la. mais ñaari sénégalais yi ñoo jotee mooy Mame ñaa ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax ne diw dafa luubal temps ak temps yor naay preuve mu sama téléphone léegi wa waaye diw boobu mu tuumal muy Mame Mbaye Niang moom mu dem porter plainte yaakaar naa ne ku tuumal nit am na droit dem justice mu leeral bi mu porte plainte pour ñu leeral moom mu ne Mame Mbaye Niang bu fekkente ne moom Sonko indi na rapport li mu koy tuumal dëgg la moom mu démissionné mais jébbal loxo jébbal boppam yoon mais kooku bu porté plainte Ousmane ko war a dem indi rapport wala mu dem indi preuve yaakaar naa ne waru am coow dañ ko porté plainte diffamation mënuñu ko baal kooku mënu ko baal neen daf koy topp ci yoon am na ci droit parce que loi bi wax na ko ku la tooñ wala tuumal am nga droit dem porté ko plainte mu porté ko plainte waaye yaakaar naa ne wax dëgg fa yàlla moom sénégalais comme Mame Mbaye Niang sénégalais war nañ mën a dem si justice mu leeral ku tooñ ñu xam ne kii moo tooñ liñ daan daan dal sa ko. mais Ami ñëw ñaata yoon nga dégg. Euh, Mame Mbaye Niang ne rapport am na ñaata yoon nga dégg Amadou Ba ne rapport am na ñaata nit nga yàgg a dégg même journaliste yi ñuy wax ne rapport dafa épinglé Mame Mbaye Niang ba ñu koy woowee Mbaye Prodac loolu ñaata yoon nga ko dégg te yéen aussi gis nañ ne da ngeen see rax wàllum politique ndax yéen COJER yéen a ngi def ay conférence de presse waa cadre yi aussi ñoom ñoo ngi def ay conférence de presse mel ni mbir mi da ngeen koo jël yéen bëgg ko politiser moom moo ko bëgg a politiser moom mi moom mi wax ne ci meeting am naa rapport bi mu sama portable buñ ma woowee ma indi ko moo ko wax comme yow ni ngay déggee waa léegi kooku noonu ñu woo la yow nga war a dem première renvoi deuxième renvoi troisième renvoi nga ne na ñëpp génn gunge la ngay dem kon yaakaar naa ne dossier bi man damay wax dëgg amul dara lu luñ ci politiser ñun waa alliance pour la république ñaari sénégal sénégalais ñoo jotee dama koy répété non déglu ma rek déglu ma ma expliqué danga dama lay déglu pour sa question rek may déglu ñaari sénégalais ñoo jotee nga tooñ ma comme man yow boo ma tooñoon tey ma dem ci ma dama lay baal boo ma baaloo ma baal la mais suma la baalo am naa droit dem ci yoon yoon atte ki tooñ ñu ñu ñu condamné ko si simple donc amul dara loo xamante bu politique di am moom moo ko politisé moom mi nga xamante ne moom moo woote nañ ko gunge moom moo woote trois jours ay manifestation am na ci droit plein droit parce que autorisé nañ ko ko xam nga nañ ko ko mu def ko muy meeting ba ak beneen marche bi autorisé nañ ko def na ko yaakaar naa ne comme am na ci droit bañ autorisé ko kon état aussi pour protéger la population bi nga xamante ne moom moo ñoom la ñu wóolu teg ko muy état état un état fort yaakaar naa ne dinañ jël toutes les dispositions pour que nit ñi dem fàtte à leur préoccupation mais mënuñ nga woote di taal dëkk bi te état du jël ses responsabilités donc rien de petit amu ci li am moom moom la ñu accusé ne moom moo wax mu wax ñu porté ko plainte na dem ci yoon ñu leeral ko leneen luñ ci am lu ci am deew ak lu ci am rek ñoom la d'accord léegi euh, dañ ko gis ne moom. suñ ko wooloo tribunal day dem moom lan moo tax ñu ne ko fii ngay jaar ak faa ngay jaar ak bu ko forcé na ko par force di nga dem di nga dem tribunal léegi est-ce que mënuñ ndax président Macky Sall fii bi muy opposé woolu nañ ko fii. yéen ñëpp ngeen dagg topp ko Idrissa Seck la même chose Abdoulaye Wade loolu ah Ousmane Sonko am na sañ-sañ buy dem woo ay nitam ñu ñu gunge ko loolu kenn ku nekk am na si droit. waa léegi ah, xam nga Ousmane ñaata nit ñoo jote ñaar waaw. du Mame Mbaye ak Ousmane Sonko. waaw Mame Mbaye dem na ba egg moom tundung ànd ak jabaram dem moom toog di xaar léegi kan ci kan moo ne man duñ ma xam nga moom dafa wax loo xam ne dafa doy waar daf ne. maay yoon bu ma neex laay jaar. daa ko am na si droit. ba pare ne yéen ñëpp génn leen. Mm-hmm. gunge ji ma. Mm, ñu ànd am na si droit. Mm-hmm. du yoon loolu nga wax jàpp nga am nga si droit. am na si droit léegi gunge ji nañ ko. moom mu nar a créer embouteillage. mu mu nar a baare yoon bi nit ñi war a dem liggéey nit ñi war a dem def nekk ci leneen lu ñu war a nekk loo xamante ne du moom du Mame Mbaye Niang moom moo ko tax moo tax a jóg nit yooyu noonu war a dem dama ne état war na ma man état la wax ma ay président Macky Sall état. war naa mën a jël see responsabilités mooy que ne awal fu la neex mais sa oto yow mii wuy ji ah demal yow kese nga dem tribunal. d'accord c'est simple mais yow nga bëgg a dajale mbooloo bi génn ci kaw ay cortège ñii di filmer ñii di daw ñii di dàqante ñii def lu ne dafa rafetul nañu revenir a la raison nañu ànd ànd boo xamante ne na dëggu li xew Sénégal musuf opposition bu ne xew na fi lu ne am na fi te bu ne am na fi xeex bu ne am na fi mais lii xew nii amu fi journaliste nañu waxante dëgg. tey ni déglu rek déglu ma ma ma terminé boo paree nga posé nga wax ma am naa temps tey li ma gëm mooy ñaari nit ñoo jote kenn ki dem na aw yoon bu ko neex kenn xamu ko sax mu dem toog di xaar. moom mi nga xamante ne moom mooy politique moom mi nga xamante ne moom moo bëgg a indi fitna ci Sénégal moom moo taxaw ne nañ ko gunge léegi ñi koy gunge aussi nañ dugg si oto yi ndànk par ndànk ñu dem ba tribunal ñu dem toog seetaan ñu mën a dugg dugg ñu a dugg ñu dem ñibbi mais mënuma d'accord ñu ànd def cortège naan ay dañuy jaar fii wala jaar fële wala jaar fële pour indi trouble à l'ordre public loolu homme de tenue duñu ko nangu et dañu ko leen di féliciter force de l'ordre dama leen di féliciter di wax ne le peuple est fier l'ordre public yéen yéen a am droit pour défendre ñu mun personne de amitop muy yow mi Abdou Khadre muy keneen ak keneen à ce que ñu ñu nekk seen jàmm dañu ah, waxante dëgg mais Ami est-ce que tey gëntoon yomb xam nga sénégalais yi li leen intéressé bi inspection générale d'État moo ko def wala inspection générale des finances mhm. sénégalais yi li leen intéressé mooy vingt-neuf milliards yi nga xam ne mambay ñaam Niang moom moo ne rapport am na Amadou Ba ne rapport am na mambay Mbaye ne moom moo bindoon ministère des finances ngir ñu def rapport léegi est-ce que mënuñ waruñu woon a leeral vingt neuf milliards yooyu fan la dugg ak lan lañ ci def dañ ko luubal wala luubaluñ ko est-ce que du loolu moo gënoon a intéressé Sénégalais yi kan ne ak nangam-nangam. voilà xam nga yow yaa ngi wax yaa ngi kii sa bopp rapport la wax lu mu wax nga wax yaa ko wax. Mm-hmm. ne moom la yor. du n'est-ce pas loolu la wax. non inspection générale d'État wax. mais dafa juum nee na inspection générale des finances la a wax. léegi moom bu andi woon pour pour maanaam pour yoon leeral ne vingt neuf milliards dañ ko luubal wala luubaluñu ko. lenn rek am na occasion pour présenter pour pour sénégalais xam lan moo si xew mooy Sonko mi accusé mu indi rapport bi bu dee dañ ci tuumal Mame Mbaye Niang rapport boobu noonu 29 milliards déggul Mame Mbaye Niang nee na man ci li ma dégg parce que man ay Amadou Ba déggum mais Mame Mbaye Niang moom bu indee rapport moom Mame Mbaye mu ñu ne moom moom la ñu tuumal ci rapport bi 29 milliards. mu démissionné jox yoon ay kéem kon kooku bëgg na rapport 29 milliards yi leer waa xaaral xaaral rek xaaral bëgg na rapport 29 milliards yi leer mais rapport boobu noonu ki ko war a indi accusé ba mu war a leer il faut mu indi rapport bi mu leer ci bopp sénégalais que le rapport 29 milliards yi Mame Mbaye Niang moo ko luubal pour ñu mën a àtte devant les sénégalais fan la dugg fan la duggul mais tant que rapport ko rapport ñëwul mais fan kan nan lañ ciy mën a àtte Mame Mbaye mënul ne parce que rapport bu ko épinglé gisaguñu ko parce que moom lañ ko mu dem ci yoon léegi nag ki ko accusé war a indi rapport bi bu leeree ne rapport bi ko luubal man de ami topp moom moom wax na ko aussi dama jàpp ne war nañ ko leeral comme ni nga ko waxee sénégalais yi que ne 29 milliards yi ni fu mu dugg fan la jaar mais de fait que que Ousmane Sonko moom mii ne yor na yorul ëndeegu ko si justice fan lañ ko mën a leeralaate ami ami est-ce que mosoo benn jour ñu ne la Mame Mbaye Niang bind na lettre na day démissionné mos nga ko dégg wala mosoo ko dégg waaw mm, comme j'ai pas compris maanaam. maanaam Mame Mbaye Niang rapport Prodac bi taxoon na si la bindoon ne dafay démissionné. waaw euh, ci gouvernement bu Sénégal. mais est-ce que rapport bi boobu mu ne woon dafay démissionné si gouvernement bu Sénégal est-ce que rapport bi moom. maanaam moom ndax ndax moom moom moom moom lañu épinglé parce que ku taxaw ma dama jàpp ne xaw je ne pas là pour défendre Mame Mbaye Niang ça soit clair je ne suis pas là pour défendre Mame Mbaye Niang c'est un sénégalais moo porte plainte un autre sénégalais avant ministre avant leneen ak leneen léegi yow li nga ne démission mu bindoon man dama jàpp ne moom ci peut-être moom ci moom la personne de Mame Mbaye la taxoon mu bind mooy rapport bi existé wul parce que booy démissionné dañ lay tuumal ci dara nga nga nga waat ne existé wul ci li ma jàpp yow nga de nga ne da ngay da dem mais la fait que maanaam rapport bi pour man ma gëm ne am na wala sénégalais bi gëm pour ma mën a leeral samay 29 milliards mooy Sonko. Hmm. mu indi rapport bi ne rapport bii moo ngi nii justice ne Mame Mbaye Niang lii kat yaa ko luubal boobaa moom wax na te ñun aussi dinañ taxaw wax. mais dara leeru fi mais li tax mun ngeen ngeen dugal ci politique. yéen da ngeen cee dugal politique ndax yéen waa Benno Bokk Yaakaar yéen COJER mhm. chaque jour yéen a ngi def ay conférence presse mhm. même ministre de la justice déglu naa non ministre la justice mhm. déglu naa ko moom mu ne Ousmane Sonko dafa diffamé Mame Mbaye Niang te dafay am loo xam ne nit ki atteeguñu ko da ko war a jox présomption d'innocence beneen bi neutralité dafa war a am ci ministre boobu beneen bi mooy. fan la ko waxee. Euh, ci Sud beneen bi ba avocat Ousmane Sonko yi bind nañ beneen bi yéen def ngeen si conférence de presse yéen ndawi euh, APR yi attaqué Ousmane Sonko xas Ousmane Sonko ba pare ngeen ne sax da ngeen di faire face def ay si seen euh, gox-goxaan yi ngeen fas yéene jàmmarloo ak waaye loolu moom fan ngeen ko teg. xam nga yow man so ban question laa doon xaar nga posé ma ko. pourquoi Ousmane Sonko di politiser dossier bi. non yéen a ko gën a politiser. non non non non non defuñu point de presse avant Mame Mbaye Niang bi moo dem ñu renvoi mu ñëw def point de presse. waaw invité ses camarades parce que ci parti la bokk te Ousmane Sonko ak i ñoñam dañu ne dañuy politiser dossier bi ñoom loolu la ñu wax Ousmane Sonko ak i ñoñam. chaque jour ñu xas le président Macky Sall Ousmane Sonko ak jour ñu attaqué président Macky est-ce que mas na wax waxul mais Mame Mbaye Niang am na droit ñu porte ko plainte en tant que sénégalais mu dem ba ñëw woo ay camarades de parti parce que nag nañu waxante dëgg ñoom ñoo ko politiser ñu soog koy politiser Sonko mooy taxaw di def ay point de presse waaye Yewwi Askan ñooy taxaw di def ay point de presse di xas nit ñi di saaga nit ñi alors que le cas de de Barthélémy Diaz c'est l'ami de Mame Mbaye keroog ba nga ko gisee photo bi mu ngi circuler dafa dugg da ko nuy jox ko loxo kaat maanaam ça veut dire que man li ma war a wax sénégalais mooy. muy Jean muy Paul xam nga lan mooy problème mooy Sonko tey exemple bu jëloon réew mi taxul ministère yi waa wàññee am ñu éliminer des ministres mënoon ay ministres dañuy xëccoo ndax vi ni euh, nga waxtee maire yi rek ñu ngi xëccoo ñu ne woon dañuy démissionné amul cumul ñu ngi cumulé ba tey kon yaakaar naa ne ministère du changé direction yi du changé nomination yi benn du changé comprendre nga kon yaakaar naa ni ndagam loolu moo am nañu revenir à la région revenir arrange mooy Ousmane Sonko fa lay terminer bu taxawee di xas suñu leader muy le président Macky Sall. day opposé. waaw day opposé woote gatsa gatsa. waaw ñun aussi am nañ droit non déglu ma déglu ma nañ waxtaan dëgg. ku ne am nga waaw day opposé. ma le président Macky Sall aussi moom mu yor nguur gi. di ko doxalee ni ñu jàppee ne moom mu ngi koy doxal ci yoon moom muy opposé di attaquer le président Macky Sall yaa may dégg moom muy opposé moom muy opposé di di di attaquer le président Macky Sall ñun am nañ droit attaquer waaw déglu ma dama ne am na droit opposé hmm. mais ñun aussi am nañ droit bu attaquer suñu leader di ko xas ñun aussi ñu jàkkaarloo ak moom waaw wala déet dëgg am ngeen ci droit am nañ ci droit kon yaakaar naa ne jeex à chaque fois que Ousmane Sonko génn pour attaquer le président attaquer régime bi ñun incha allah ndaw yi alliance pour la république dinañ génn attaquer ko attaquer ñu mu àndal parce que nag dëkk bi moomuñu ko mënuñ ko wax ñu saaga la ko wax ñu xam yow journaliste nga mais ce qui s'est passé à la Médina mais ce qui s'est passé à la Médina c'est grave xam nga da nga ma posé question ne ma nervi la et tout lu nervi agent mairie la ya a un journaliste qui a appelé a un journaliste xaar rek y un journaliste bu toog ci wax ne Medina ngi tàkk te moment boobu Medina tàkkul boo yëpp départ dem Medina ba faat dakkan doomu jàmm xeer lañ ko dóor ci bopp ca mairie Medina ba la taxaw di protéger bien am parce que fa lay liggéeyee kenn mënu koo tere kenn man premier mois de mars bi amoon dem naa mairie Yoff taxaw fa di live pour te dire sénégalais dañ dem ba dañ tiit des gens tapé pour te dire di ngay def risque la alors que je le pour sama commune pour protéger suñu ay bien donc kooku du Doudou Fall ñu koy jaale daf ñu métti lii nga xamante ne dal na ko du yoon te yéen da ngeen war a taxaw en tant que journaliste wax si mooy télé yi toog ci journaliste yi toog si tele yi di wax naan fii tàkk na fee tàkk na bu ko defee boo yi nekkoon fee déplacé wu ñëw fii ba rey doomu jaamu du yoon ku ko waral Sonko parce que moo woote résistance mortel combat xas suñu kilifa diine yi dañ waxante dëgg murit nga li ñuy wax si ñun tey suñu xalif yi neexu la yaa ngi ma yaa ngi may yaa ngi may interviewé mais neexu la man li ñuy wax sama xalif neexu ma keneen ak keneen ak keneen te loolu doo ko dindi parce que c' est des écrits des gens identifiés yoo xamante ne ñoom ñooy jël déglu ma déglu ma amoo mosoo gis nitu Macky Sall temps wu Ablaye Wade bu taxaw di xas kilifa din amul génneel ma archive musuma gis man ami tab nitu Macky Sall bu identifié Macky Sall comme ñoom ni ñu nekk ay coordonnateur communication bu Pastef parti politique identifié ngay ne leader nga foofu nga taxaw bind di attaquer ay xalif généraux et wax nañ ko c'est ça qui devait être le débat le débat être centré sur na ñu respecter suñu ay xalif moi en tout cas respecte les xalif parce que ñoom bu ñaan jotee ñaan te gis nga jouru euh, Sonko bi dañu jékki saay asamaan si lëndëm mel ni lu xiin fii dëkku baatin la dafa am ñaan buñ fi teg kon kenn mënu koo taal te nag force restera à la loi lépp lu Ousmane Sonko le 30 ngay préparé lépp lu Ousmane Sonko woote force de défence et de sécurité dinañ ci dem parce que dañuy protéger nan nga mën a juger euh, euh, gu jaamur bu mu ubbi commencé ci mille francs la commencé ba yor mu ubbi di jaay ay iPhone ñooñu di ko di dajji ko di sàcc yóbbu lan nga leen di wax c'est des éléments de Sonko non. loolu ban firnde nga si parce que non parce que yéen a ne journaliste yi jeunes génn leen. kon bandi yooyu ñoom Sonko lañ àndal. non dégg ma dégg ma dégg ma dégg ma dégg non non d' accord kon ba ma xamee ne ay bandi da ciy rax mu bëgg Sénégal bëgg jiite réew mi kon waroon naa tee bandi waroon na ne bu kenn génn mais man je considère que ak ñi may déglu ñëpp que ne ñi sàcc ci ci Auchan yi ñi taal Elton yi di sàcc ñi yanut ay saako ceeb di ko génne ci kër ci kër ci boutique jaamur di sàcc ay iPhone jaamur bandi yooyu c' est des éléments de Sonko kenn du ko parce que c'est des éléments de Sonko parce que ñoom ñoo ne génn leen ñoo ñu génn di taal bu dee bokkuñu ci ay éléments de Sonko rek wax ma bu dee bokkuñu ci kon kon peuple bi dañoo suur Sonko bu fekkente ne xaaral xaaral xaaral ma terminer ma terminer dama ne bu fekkente ne ñooñu du sàcc comme yow ni nga ko waxee en tant que journaliste ni nga ko waxee ñooñu di taal ay bandi lañ dañ ci rax. kon kon Sonko amul nit. kon ñu doon taal ñëpp ay bandi lañ kon Sonko too wooteem kon réussir. non non dama ne ñi wax ñoo doon sàcc. ma ne la mën naa am ay sàcc yoo xam ne dañ ciy rax man sàcc yooyu dugg ci boutique daaj ji gis euh, jël fu jàmbur gis naa ko. ànduma ci dama koy ñaalu mais munu ma la. kan leen woo ba ñu génn ba ñu daaj non non non dangay continuer. da nga naan mi woote ba bandi yi génn. da ñooñu noonu yow daa Sonko kon na arrêté loolu nga war a wax. waaw amee xam nga tey mënuñoo wax guléet yéen 2012 bi ngeen di opposé Mame Mbaye Niang mii tey sàcc amu fi danga ma naan giri palais yi mu yéegoon waaw d' accord mais sàcc amul xam nga Guy Marius Sagna dem na di tëdd buntu palais jàpp nañ ko jàppaat ko est ce que taxaw nañu ne ab sàcc la est ce que tax nañu ne bandi la non c' est un opposant mooy li Guy Marius Sagna def bu ko bu dee mambay bi ngeen di kër mambay laa fe yéeg si giri mais tamit loolu c'est la démocratie mooy mooy ay Guy Marius Sagna boo xamante ne moom aussi mu ngi def pareil di pale beeg fépp mais dañ koy jàpp ne c'est un politicien la muy def assemblée nationale dañuy jàpp ne c'est un politicien c'est un opposant mais li ma d'accordul mooy xale yi génn yëpp di sàcce fépp nag amul fooy laal foo xamante amul ge bon yow yaa ne saay bande kon bande yooyu Sonko lañu bu dee ànd ñoog Sonko rek kon Sonko kenn wootee à la résistance amul ay nit. ami dama ne la ñaar moo am soit nga ne ma bandi dañ ci rax. dama ne la dama ne la nga ne ma. Sonko woote na mais kenn génnul parce que gëmatuñu ko. waaw d'accord ma la. sinon bandi waa kër Sonko la. ami ami boo demoon màggal sax dina am ay bandi yoo fay fekk ñuy sàcc ak a tafu. ñii ñii ñii gàmm ak ñii raas dem bokkuñu. loolu laa la bëgg loolu laa la bëgg expliquer. mais tey euh, ami yéen euh, violence bi am yéen. kenn ëpp leen ci responsabilité. ndax yéen ni ko opposition bi di wootee résistance confrontation yéen yéen tam noonu ngeen koy wootee mais bizarrement euh, parfois bu manifestation yi amee du ñu leen faral di du ñu leen faral di gis ci euh, ci ci ci ci mbedd mi Pape Malick Ndour day wax mais bu euh, xale yi génnee kenn du ko gis Lat Diop day taxaw di menacer géej waaye bu fa Ousmane Sonko ñëwee kenn du ko gis wala yéen. seen chaise boobu la. seen voilà tudd ministre de la jeunesse c' est un jeune c' est le ministre de la jeunesse de toute la nation sénégalais yëpp. mooy seen képp ku jeune di ndaw ministre de la jeunesse mooy sa mooy sa ministre. yaa ngi dégg donc il a l'obligation de parler à la jeunesse kon bu defee point de presse wala des déclaration pour wax ak jeunesse bi il a le droit de le faire parce que wàllu woowu lañ ko dénk mais ci ginnaaw. il est un comme man ami tam je suis membre du haut conseil j'ai été élu gaa may mais teewul bu res bu politique jotee ku ne am nga foofar on a l'obligation ak droit man man mu neex ma ma gis Ousmane Sonko ni muy doxee ma convoqué point de presse pour tontu ko parce que li ñu yor loolu la bëgg comme li mu yor moom la bëgg di xas di dénigrer di wax deuxièmement deuxièmement ah, deuxièmement deuxième wooy ministre de la li wax na li ministre à chaque fois que sentir nga ne da nga war a wax ak ndawi Sénégal soor et parle et ñun dina nekk derrière vous damay féliciter le ministre Mapan Pape Malick Ndour di ko encourager deuxièmement xaaral xaaral xaaral xaaral ma terminer question bi xaaral bu ma dagg xam nga tamit dañu waxtaan. sama mais da ngeen di woote manifestation. waaw déglu ma waaw déglu ma da lañ def ñu la parce que déglu ma déglu ma xam nga dans ne saa yu ñu waxee ñoom. waaw ñun ñu tontu ne dinañ faire face loolu nga wax non waaw question bi loolu la waaw ça veut wax am na ba am ñu tontu pour faire face waaw voilà moo tax ma ne la ci dëkk bu normal dëkk bu normal normal amul démocratie amul yërmande nekkuñ ensemble bien ku ne boo nekkee benn kër mën nga dugg ci kër googu dem raxasu sukku añ Sénégal la am mooy des pays de la Teranga dama ne dëkk boobu noonu kon ñu ngi sàmm euh, euh, démocratie bi mais Ousmane sonk à chaque fois bu nu muy wootee euh, euh, nu ñu ko mortal combat résistance waru woon fanaan këram parce que ci yoon amul benn nit buy taxaw di woote résistance di woote xeex di woote guerre mortal combat te yoon ñëwul jël si la mais pourquoi tey ñu bàyyi ko parce que c'est un opposant buñ ko jàppoon wala ñu téye ko tey ñu ne ñëpp ku ne jóg yéen commençant par journaliste yi du yoon alal nii on est en démocratie alors que à chaque fois tey man tey moo jëloon sa micro bi nga may tendre nii ma toogoon man Ami Top ma ne suba na ñëpp tase fële dañuy taal dëkk bi benn sama benn camarade wax na ko de bërki dem Amadou Niang ku taal kër responsable ñu taal kër Sonko mais dafa tontu. mais dara ma non déglu ma déglu waaye non non leen ci nekk ci waa Pastef. ma. si que man kaay ma si dañuy waxtaan déglu ma. dama ne mais dama ne man tey su ko waxoon ñu jël si ma. man nañ ma jël si ma parce xam nga tax la permanence Sonko à Yoff bañ ko saccagé 2019 permanence ba yëgoon nga loolu. man jël si nañ ma. et je suis je suis la responsable de la jeunesse semaine de la paix mais bi ñu taalee bi ñu ne permanence dañ ko saccagé man jël si nañ ma. après midi ba 19h di ma entendre non non parce que du lu ma def man lu ma def. damay jël kàddu wax ne maa ko def ah, mais dama ne defuma ko ñu am ay preuve mu leer que ne même sa bi resto benn responsable jeune Pastef sama xarit moo ma ko moo ma ko yëgal kon yaakaar naa buñ toogee naan woy duñ jëli yoon mu ngi def li mu war a def mu ngi koy doxal mais dama ne Sonko ci boppam li muy def bu doon dañuy waxtaan rek da comme ni ñu wax dictateur moo fi am ak yëpp kon jëli nañ ko parce que à chaque fois mu ngi woote ay mortal combat mu ngi woote ay résistance mu ngi woote génn leen mu ngi woote déloger Macky Sall et tout kon yaakaar naa démocratie bi ñu doon wax ba nga wax ko sànq ne président Macky Sall bi muy def en 2012 kenn dara fekk ko ci mais loolu tamit dara fekk ci Sonko mais lan moo ci fekk Sonko mooy dafa tuumal xam nga Sonko yàgg naa woote résistance dara ko ko jàppee xale yi wàcc ah kon xale kon kon band yi ta yi sàcc ak taal waa kër Sonko lañ d'accord nga foofu ah, ñoo dem di sàcc lu xaaral xaaral xaaral waaw mais déglu ma ki ci man personnellement man ki rax ci bandi beeg sàcc ku ci manti rax Ousmane Sonko est coupable parce que moo woote ñoo ñu génn moo tax ma ne la tout à l'heure bu ne rax bi ngay wax bu dee da si am rek wala dañ ne bu dee résistance bi ñu woote kon Ousmane Sonko moom moo génne bande yi ñuy sàcc téléphone jaam ak boutique jaamur yi waaw mais yow yow xam nga ne Ousmane Sonko lii muy wax lépp Macky Sall waxoon na ko 2012 wala lu ko wala lu ko raw beneen bi mooy kan la ko wax euh, Ablaye Wade kan la ko wax euh, Ablaye Wade bu bu bu forcé bu jéemee forcé danañu wàccee xale yi délogé ji ko pale danañ dem pale Ousmane Sonko Ousmane Sonko ba mi may wax ak yow chaque jour mu woote appel à l'insurrection chaque jour mu woote euh, mortal combat mais jëlewuñ ko diffamation lañ ko toppee en fait il faut nga comprendre xaar xaar xaar non da ngay terminer xaar boo pare nga ñëw sa question da ne Macky Sall son excellence Macky Sall kenn du moom Sall ngaari lam tooro boor góor ñu ngi lay féliciter on est derrière vous. et le peuple est derrière vous. le peuple est derrière vous. kon bandi kon ñi génnoon man da ngay d' accord ak man rek que ne ñi génnoon di sàcc waa Sonko la loolu boo d' rek ma génn ci peuple bi soo d' accord rek man Macky Sall damay wax Macky Sall danga ne en wax na woy xale yi nañ génn ñu dem déloger Ablaye xam nga loolu amul. maanaam bu dee lool am na bu dee bu wax na ko xam nga loolu am parce que bi coow li du coow bi coow wax na mhm. mais ay déclaration ay taal ay wax lu ne mais xam nga kenn jël siw ko. da ngeen ko ñëwut a jàpp parce que voilà on est tax. bu ñu ko jàppee euh, ñi ay farandoom. <laughs> xoolal nangootoo wax bandi yi génn. parce que xam nga loolu xaar nañu ma si xam nga man xam nga instant bi maa yooyu ñooy débat mais dafa am ñuy déglu te seen rajo bi dafa crédible. am na si non non non danga ne dama ne la waa kër Sonko bu nu wàccee mi ngir wane seen naqar mën naa am ay bandi yoo xam ne ak sàcc yoo xam ne dañ ciy rax jox naa la exemple gàmmu boo dem wala exemple màggalu Tuubaa Tuubaa boo fa demoon ci màggal gi am na ñoo xam ne dañ faa ñëw pour sacc léegi yow danga ne ma 2012 euh, Macky Sall le président Macky Sall. waaw a fait les mêmes propos que Sonko. te dara fekk ko ci. Mhm. ma ne la on est en démocratie. mais même chose s'est passé mooy Sonko mu ngi wax lu ëpp lu Macky Sall di wax yow boo waxatee rek tax dañu waxtaan dëgg bu far lépp lu Macky lu lu waxoon waxoon Sonko wax wax na pire te dara fekk ko ci yow nga ne ma yow yaa ne ma bu waxee xale yi wàcc. ma ne la kon xale yi wàcc mooy ñi sàcc iPhone butiku jaamur yi nga ne ma ay bandi lañ ma ne la bandi lañu kon ay bandi Sonko ay bandi lay wàccee si mbedd mi parce que ñoom Sonko woote ñu génn sinon bu fekkente ne Sonko woo ñu duñ ay bandi rek maanaam ay bandi lañ du waa kër Sonko kon Sonko amul kenn ku ko répondre si appel à l'insurrection wala génn leen taal. kon Macky Sall a la confiance des Sénégalais. d'accord naa si loolu moo tax ma ne la. waaw Ami doon allez-y allez-y allez yow xam nga ne. Euh, ñi bokk ci opposition bi rawatina ñi bokk ci euh, Sonko lu ñu wax ñu jàpp dugal ci kaso bi kaso bi yëpp presque ay waa Pastef ñoo ko fees. Mm-hmm. te Amath Suzanne Camara fii la taxaw wax def appel à l'insurrection. Mm-hmm. ah wax ne Ousmane Sonko nañ ko rey. Mm-hmm. maanaam mais dara du leen ci fekk li ñu gis daal mooy ñiy bokk ci nguur gi dañuy wax ay kàddu yoo xam ne bu ko opposition bi waxoon. dara mën na leen cee fekk loolu aussi lu ñu lu ñu nemmeeku la am yi waaw xam nga yow euh, euh, comment dirais-je euh, comme nu nga ko waxee danga ne ku ku jege Sonko ku wax lu man ma ne la man j'ai été convoqué à la section de recherche bu FEDER bu jël si lañ ma jël si pour saccage permanent Sonko et je suis membre de la paire man jël si nañ ma midi ba 18 ba 19 heures laa fa jege <laughs> xam nga bu doon lu ñuy lijjanti kenn du ma jël si mais dañ jël jël si ma ma dem ñëw poser ma ay question ma répondre mes réponses convaincre nañ leen parce que kenn fekkuma fa en fait bu du sama yaay peut-être ak say camarades de parti Dakar na kii taxaw nañ ci biti déglu ma et tout mais man kenn fekkuma toog na ma waxal li tontu mais man maa toog ñu entendre ma 12 heures ba 19 heures pour affaire boobu ba ñu xamee ne du man defuma ca dara jël samay téléphone ak yëpp pourtant boobu waxuñu woon ne Ami Top nitu alliance pour la république la pourquoi ñu di ko pourquoi ñu koy jëli et j' dañ ma jël jàpp ne man la rek. ñu jël si ma entendre ma tey boo demoon Google boo tapé dañ la koy génn kon yaakaar ne affaire yi amul ay parparloo propos yoo xamante ne am na ñoo xamante ne dañuy wax nañ waxante dëgg du ay wax yu teggin du ay wax yoo xamante ne dafa am na wax yoo xam ne day taal en tout cas man Ami Amel Top man du ma wax lenn loo xamante ne dinañ jàpp ne mën na taalam réew mais Ami mais keneen ku ko def aussi yaa may dégg nañu nañu xam ne ci dëkku démocratie lañ ne ku ne am nga droit opposé mais ko opposé aussi am nga droit ka ngay opposé aussi mu indi ay éléments de réponse pour tontu la ñu dem parce que on est en politique. d'accord mais Ami est-ce que procès Mame Mbaye Niang ñu jeexal foofu da ngeen jaar pour mu a bokk ci élection moo euh, loolu moo tax. man de man de am itam jàpp ma ne ci ay euh, procès Mame ñaa bi bii diffamation la ñu war a jaar ko pour euh, pour man ko tere ko mu dem voilà man personnellement man. man non non non non amul man xaw ma fuñ ko bëgg a jàpp léegi léegi c'est un sénégalais fe dara jotu ko feebarul man bu doon dem na maase wu fa feebar ci laa ko yëgee dara dalu ko sénégalais la aptu na pour nekk candidat il est candidat mais bu fekkente ne aussi Mame Mbaye Niang en tant que deux sénégalais pour tooñ na ko porté na ko plainte baalu bi ci suuf sax yooyu dégg naa ko mais man intéressé wu ma. yaa may dégg mais. Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang citoyen sénégalais. Ousmane Sonko citoyen sénégalais ñoom ñoo jote yoon di war a àtte donc yaakaar naa bu yoon àttee lu mu teg teg Ousmane Sonko wala lu mu teg Mame Mbaye Niang loolu dañ ci ànd bu dee nag man xaw ma parce que je ne suis pas juriste je suis financier nu ma juriste mais bu fekkente ne yoon tranché na Mame Mbaye yaa am tort épinglé nañ wax na ci lim ci waral ni décision bu fekkente ne Sonko dafa diffamé moo tooñ amul benn preuve bu mu andi pour teg ci table da doon wax rek pour wax yoon dal ci koom mais lu ko ci fekk pour ci candidature am ak ñàkk candidature parce que man xaw ma je ne suis pas juriste ci candidat laak euh, yoon daf ko topp warul kii man loolu wax dëgg fa yàlla moom ñoom dinañ ko régler seen biir moom bu dee yoon am na conseil constitutionnel mu ngi fi candidature am ñoom dinañ ko valider wala valider mais daal en tout cas li am ba am mooy basé wuñ ci ay procès mambay man bokk ci li xam ci parti bi pour naan Sonko candidat wala du candidat parce que loolu intéressé wuñu d'accord mais dañoo gis euh, Aminata Touré bokkoon ci yéen gis nañ ko dem na kero ji euh, méga meeting bu yeewu bi mm-hmm. gis nañ ko aussi muy def déclaration de jàppale Sonko di naqarloo euh, maanaam àq ak yelleefu askan yu Macky Sall salfaañe ak troisième mandat bi Macky Sall bëgg def ci réew mi ban gis-gis nga si am ci taxawaayu Aminata Touré fi mu ne nii waaw man gis-gis bu ñaaw laa ci gis de côté de bin benn bi mooy Aminata Touré c'est une maman sama yaay la Euh, pôle parenage bi ñuy def parrainage bi on était ensemble avec elle doon ci def liggéey bu am solo ànd ci ak moom liggéey bu set bu am solo ñu ànd ak moom ba bi ñuy déposé en 2019 suñu parenage bi ñu ñoo ñu ñoo xaaral rek ma terminé bàyyi ma ñu ñoo àndoon ak moom dem euh, conseil constitutionnel fanaan fa ran parce que dañ ne woon ku njëkk xam nga boo ñu déposé euh, parrainage ki njëkk déposé bu dee dafa am doublon yow la sa keneen ki deuxième yow sa yow la ñuy valider sa bos. Hmm. deuxième bi dañ koy dindi. donc xam nga amoon na boobu déggoon ngeen coow yéen a ñu dem moom fanaan fa euh, doon koo xamante ne ku ku ci ci parti bi la bokk la bokkoon alliance pour la république. donc ñu ànd ak moom. ba léegi ma saa yu Sonko saa yu bi ñu defee problème. mu ci ba léegi waaw mu ngi ci ba léegi. waaye kon baax na comme yaa ma ko informé baax na ba léegi parce que je le vois nii suñu ay rencontre à Père gisuma mu taxaw ci lu alliance pour la république di def. te il était gisoo démission yaa ngi may dégg voilà. donc man man man man ci li ma jàpp euh, mooy euh, mooy euh, la. parce que war na yee sénégalais yi. waaw xaaral xaaral ma terminer non bàyyi ma terminer sama dynamique tamit ngir yàlla Abdou Khadre bàyyi ma. parce que je suis devenu je suis calme. pour expliquer ci kaaw mi Touré bi mu leer. mu mu mu saa ma jàpp ne yi moo moom saa yu Ousmane Sonko génnee. suñu yaay Mimi mooy génn man j'étais à la permanence chaque jour point de presse benn rëccu ma ay yaayee jooy doo dem yooyu yëpp moo ko génnee di wax di xas Ousmane bu génnee 19h 20 moom mooy ñëw wax te kenn forcé wu ko wax bi aussi du parti bi moo ko force wax bi mais moom mooy ñëw taxaw wax tontu Ousmane Sonko bii dem fii bii yaakaar naa tu as les images donc loolu li ma ci analyser rek mooy le fait mu dem meetingu ñoom Sonko yeewi askan wi mooy sénégalais ñu bañ a nelaw. parce que am na lu ko metti tax mu defee ni mu defee am na lu ko metti tax mu dem mais man Ami Top man ak quelque que soit Alpha man ci moment bi ñu toll si GTL jamais ma dem ci yëfi Ousmane Sonko ni yeewi askan wi parce que xas naa leen xuloo naa ñoom nu ñu waxtee défendre naa parti bi contre yeewi askan wi taxawal benn Bokk Yaakaar pour yeewi askan wi kon même bu ma meree mer mer pour le parti je préfère toog sama kër même bu dee damay créer sama parti ma créer sama parti mais pas à ce que man may dem di rejoindre Yewwi Askan Wi ñoom aussi ñu ko accueillir mooy li ñu këmul ku ne sa intérêt personnel la parce que bu ñu Sonko première réaction sonk bi muy soog a ñëw yaa ngi koy fàttaliku anti système la wax ay Aïda Mbodj mooy maamu système bi ma carte ma caution Abib Si moo jiite estant bi Yewwi Askan Wi coalition bi fu mu mooy sis moom mooy moom si boppam mooy système bi nga ñëw mi Mimi Touré ñëwaat même chose Cheikh Bamba Dièye maanaam des gens yoo xamante ne ñoom lépp lu mas a xew depuis Senghor ba Abdou Diouf ba Ablaye Wade ba Macky ñu ngi ci biir tey ñoom ñoo constitué Yewwi Askan Ousmane Sonko leaderu Pastef ne woon man antisem laa woote dañu war a fusiller Ablaye Wade Abdou Diouf Senghor ñëpp ngeen ñëw retrouver wu mu accepté ko kan yaakaar naa sénégalais la ñuy nax kon sénégalais yi may déglu nañu revenir à la raison garder leen seen doom yi téye leen xale yi bu vote jotee nag chacun est libre nga dem votel ku la neex. mais Kanta xaaral rek la ñu waxoon. wàcc si mbedd mi ba Ablaye Wade di force. non non yow dañu nekk si dynamique xam nga dama bëgg question yi ñu koy ci temps parce que wax nga 2012 Ablaye ba nga tontu la ca. non non dama ne am naa droit en tant que jeune di xale comme ñoom. waaw na bu leen wàcc ne en tant que jeune. waaw xale comme ñoom. am naa droit ne. xale yi. bu leen wàcc nañ leen téye. waaw seen biir kër yi. moo tax ma ne la 2012 waxoo woon loolu. yaa may dégg 2012 bi ngay opposé danga ne woon xale yi wàcc leen ci mbedd mi. doo ma waa ah. mais atu xaar tamit ba may ma tuuti boo ah, xam nga yow da ngay posé question joxe réponse bi. non da ngay posé question joxe réponse bi. non non da ngay da ngay da ngay kii dama ne. man maa ne. waaw li xew xam nga Macky Sall dafa génn PDS dem. waaw ànd ak ñu nekkoon PDS dem. Mhm. du dëgg. waaw wootewul anti système. donc sama question. bu ko changé. Ah, da nga da nga wax Mimi Touré nu mu demee fële loolu yow question bi ne ci xel. ak bi ne ci xelu Sénégal mooy le fait que Mimi nekkoon APR nekk APR parce que man je sais pas gisuma. Ah. mais nekk APR mer dem rejoindre ki mu daan defanteel ci biir élection yi passé yaa may dégg ma ne la Ousmane Sonko moo fi woote woon anti xam nga sa andim bi woote woon anti système de. nañ wax waxal yow comme yaay pour kii question yi woote anti Sonko daf ne anti système la woote. ñu gis na léegi ñi ko wër ñëpp ñoom c'est le système. kon système boobu ko boobu ko boobu ko woo moom xale yu ndaw yi ak jeunes yi ni ngeen di wax gëmoon ko ci anti système am naa droit ne leen carrément ñoom seen ay yaay ak seen ay papa nañ leen téye parce que nekkatul sonko bi woote woon anti système nekkatul sonko bi nga xamante ne moom moo ne woon nañu fusillé Ablaye Wade Abdou Diouf ah, pourquoi waa wàllu se waa wàllu nekkatuñ en phase ak Ousmane Sonko wala yeewu askan wi lu tax. lu tax <laughs> pour le cas de Mimi Touré non yow xam nga ko journaliste nga kon donc naxe am na parce que ñu même wàllu askan bi dañuy opposé wu ànd ak si yeewi askan bi ci élection yi passé mais ñoom dañ ne dañ contre li nga xamante ne moom mooy le cas Mimi mu ñëw mu ñëw assisté ay affaire yeewi Mimi nee na PDS ñooñu dañuy dil ak président Macky Sall waaw xam nga loolu moom la engagé man amoo mon niveau man à niveau man ci fi ma toll ci ci parti bi bokk parce que ku ne tamit am nga foo toll bi moom xam na lu ma lu ma xamul mais si man li fi ma toll ci parti bi dégguma gisuma fen fu waa bi wallu di dilee ak waa alliance pour la république Benno Bokk Yaakaar. léegi léegi léegi euh, Ami Abel euh, Top euh, Rewmi FM pencum réew mi yow nga nekk membre ci au conseil des collectivités territoriales yaa jiitee ndaw ñi bokk COJER jigéen ñi ak plateforme beneen plateforme boo xam ne moo ëmb ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ci ci ndaw ñi nga xam ne daal ay ndaw ñu jigéen lañ léegi Ami yéen. seen wax mooy da ngeen bëgg président Macky Sall sampaat ndëndëm ngeen tuddee ko bu sampaate ndëndëm deuxième quinquennat te président Macky Sall fii euh, moo taxaw wax ko. Mm-hmm. ndax aussi euh, gor sa wax ja. Mm-hmm. jàpp naa ne noonu loolu lañ la yaree. Mm-hmm. gor sa wax ja léegi président moom dañoo gis ne yéen ak ñoñam dangeen ko bëgg mu sampaat ndëndëm te ñëpp xam nañ ne. yéen nee ngeen am na lu ngeen mayutoon Ablaye Wade est-ce que li ngeen mayutoon Ablaye Wade 2011 est-ce que ñii fi nekk nii jàpp ngeen danañ leen ko may bu président bëggee forcer sampaan dëndam. waaw ku mu neex euh, ñi fi ne bu leen jaralee rek liñ jaraloon Ablaye Wade seen seen si ñoom la engagé on est en démocratie dañuy opposé wu am nañ droit bëgg mais conseil constitutionnel bu valider deuxième quinquennat président Macky Sall c'est bon moo am habilité pour valider ko man Ami Amel Top man Macky Sall son excellence mooy sama candidat en 2024 déposé pourquoi. est-ce que war naa déposer mais. pourquoi war a déposer moralement moralement. non non je parle pas de fii nekkul ay moral ay affaire xam nga la nekk mooy que ne da nga ma posé ne ma. ñun ndaw yi surtout xale yi jigéen ñi dañu ne président Macky Sall mooy suñu candidat en deux mille vingt quatre. ma ne la lu euh, loi conseil bi conseil constitutionnel yoon may na ko mu nekk mu présenté wu deuxième quinquennat te man ami topp ak ñi ma àndal ñu waroon a toog fii war fee mën a toog te peut dinañ fi toogi di yaa may dégg fi si ñu jëm man président Macky Sall mooy sama candidat en 2024 te man loolu romb na maanaam man président Macky Sall bu nekk bu ne woon moom personnellement du dem. Mhm. Hmm? man dinaa forcer président Macky Sall mu dem nekk candidat même bu dee damay cotiser ñu def caution ñu ñu ñu dugal caution pour mu nekk suñu candidat ñun Benno Bokk Yaakaar. fitna ngeen bëgg a yee si réew mi. fitna ban ci ban côté. ah forcé gisoo réew mi Ablaye Wade bi mu ko bañee. Mhm. Ablaye Wade non non pas bi mu ko bañee. bi mu ko bañ bi mu ne day dem demul. dem na nan la Macky Sall def. président dugg ci àll bi. ku nekk préparé nañ dem dugg ci àll gis nga wax ji wax ji mooy le février man ci man li ma jàpp man maa ko wax man Ami Top. Mm-hmm. Macky Sall est candidat en 2024. et préparé nañ pare nañ ñun ñu ngi ci yoonu préparé ay suñu ay élection 2024. ba pare léegi nag képp ku ko contre. ba pare képp ku ko contre xaaral dugg ci dëkk bi après le urne mooy wane. mais nii nii nii nii Macky Sall est notre candidat. et ñu ngi ci liggéey bi. d'accord ànd ak ànd ak ak ay la jeunesse féminine ànd ak ñoom. dugg ci dëkk bi di préparer suñu candidature instant bi ñu ngi ci wàllum parrainage bi. pour 2024 pour wax ji gën a leer. instant bi ñu ngi ci. présent parrainage bi pour 2024. d'accord léegi ami euh, six minutes moo ñu dese dañ ko bëgg a euh, jagleel euh, plateforme. des jeunes fii dynamiques de la République yéen ban taxawaay ngeen fas yéene amee. fii ak 2024 jàpp nañ ne sax yéen vraiment ñu wàññi dundu gi ngeen waroon a tal mais talu leen ko li leen li ngeen tal daal mooy bëgg fexe imposé waat nit ñi Macky Sall fi na nar judduwaat ci réew mi ban taxawaay ngeen si am yéen yéen jeunes filles yi. Euh, xam nga da nga posé question ba ca wax ci dara dañ cee ca baxal daal ne instant bi dund gi lañ war a wàññi wax ba ñu naan ay wax yi kon wax ay dund gi ah. xam nga waxi dund gi moom boo ci waxee dama ciy sawar a tontu parce que yaakaar naa sa boo nekkoon na ci point yi a waroon mooy par exemple tey bu dee da prix yu bëri dafa yëg te laal noon dafa am inflation au niveau mondial inflation boobu am faible la boo xoolee France ñun seen prix dañ ko multiplier par deux mais Sénégal boo xoolee président Macky Sall. chaque année day subventionné say cent milliards jëmale ko ci wàllu baisse des prix ak li nga xamante ne mooy électricité bi boo xoolee boo xoolee pétrole ak bi yëpp yëpp yokku mais Sénégal ba tey ñu ngi gérer gab bi parce que président moom même bu dee y'a beaucoup de problèmes moom mu ngi jéem a essayer di xeex pour chaque année mu subventionné cinq cent milliards pour jëmale ko ci wàññi wàllu wàññi dund gi ak li nga xamante ne moom mooy électricité bi deuxièmement yaakaar naa ne gis nga ko l'autre jour aussi euh, euh, prix de loyer yi wàññi nañ ko peut-être dinañ ci gën a xóotal beneen émission ñu ngi koy wàññi mais bu ñu ñëwee di ko wàññi boo xoolee ñu ngi jël le président Momar Ndaw nest pense que xam nga ko Momar Ndaw la ñu dénk li nga xamante ne voilà commission de de de de de régulation euh, de régulation des des des des des des des des des loyers mm-hmm. ki ñu ko jox c'est pas un homme politique il n'est pas de la paire donc moom yaakaar naa moo jiite ASCOSEN moo ko jiite donc kooku lañ jox mu gérer commission boobu pour gérer ko suivi bi ak évaluation bi nga xamante ne war nañ ko donc donc le président Macky Sall yërmaane gi mu am ci sénégalais yi yaakaar naa ni mu ngi koy doxal mais tey la ñàkk liggéey Pape Malick liggéey jeunesse ndaw liggéeyu ndaw ñi si la waroon a nekk nekk fii di wax euh, gat voilà xam nga man boo waxee ci Pape Malick Ndour da wax lu man lu ma man sawar a wax parce que c'est un ami c'est un frère liggéey bi mu koy def ñu ngi xaar xaar xaar mais ñu ngi ci non mu ngi non non ma Ba Malick bi ñu ko falee yàggul mu ngi ci di li mu ngi ci di di liggéey te dans quelques euh, euh, ci kanam tuuti di nga gis ne vraiment yu bëri dina changer lu jëm ci wàllu ndaw yi parce que bu ñu xoolee ministère de la jeunesse dañ ko séparé woon ak ministère emploi bokku ci woon bi ne taal di ñëw donc léegi jël nañ lépp ñu boole ko def ministère de la jeunesse et emploi donc yaakaar naa ne incha allah di ma invité waat fii si plateau bi. ma def une évaluation li nga xamante ne ministère de la jeunesse muy Pape Malick def na ko ci wàllu xëyu ndaw yi mais def na ko ci financement yi mais def na ko ci accompagner parce que entrepreneuriat bi il faut ñu wax si mon frère ñëpp mënuñu xëy ci bureau yi ñëpp mënuñu xëy dem dem dem dem di liggéey. mais li mu ngi ci non non non mu ma am lu ma la leeral que ne le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour est en train di travailler di xool naka la ñuy gën a mën a taxaw pour mën a jàppale ndaw ñi ci liggéey mais surtout sur l' entrepreneuriat mooy accompagner leen a ce que ñu mën a taxali par exemple y a des fonds yoo xamante ne c' pour les jeunes dames. yooyu noonu tey jeune dame yi ne man ama à mon niveau je suis en train de faire un programme boo xamante ne chaque commune. bu dee j'ai dix jeune fii filles il leur faut juste euh, des de trente personnes et ñu xool nan lañu demee vers ces jeunes parce que à chaque fois je le dis ah dama naan ndaw ñi nañu dem vers l' information ANPEJ mu ngi fii pour accompagner jeunes yi ci li nga xamante ne moom mooy formation ANPEJ pour comment ay ay ay montage de projet et tout DER mu ngi fi di financer effectivement ñu ngi financer 3FPT mu ngi accompagner jeunes yi déglu rek déglu rek déglu permis de conduire yi ay kii comment ay formation mécanique formation yi 3FPT mu ngi koy def ak jàppale étudiants yi deuxièmement mooy FONGIP mu ngi ci yaa may donc yooyu noonu jeunes yi dama leen lancer un appel dem leen si institution yooyu si structure yooyu excusez moi ngeen dem ñu accompagner leen ngeen entreprendre ba mën a jël yeneen jeunes à ce que ñun ñuy liggéey et loolu yaakaar naa dinaa fi ñëwaat pour def une évaluation ci li nga xamante ne mooy xëyu ndaw yi ak ministre de la jeunesse ci emploi yi formation financement yi nga xamante ne def nañ ko pour que comme temps amul dinañ ci gën a parce que je me porte volontaire pour ah, pour lancer appel à la jeunesse sénégalaise à ce que mm-hmm. vraiment ñoom aussi ñu am les informations. même buy jaar ci man ma jàllale leen ko. léegi euh, euh, plateforme des jeunes filles dynamiques yi voilà plateforme des jeunes filles de la république ni ma la ko waxee. Mhm. ñu ngi ci des programmes yu ñu war a def di ko doxal. Mhm. comme res comme jeunesse semaine nationale ni ñu taxawee pour taxawal le parti pour taxawal le président Macky Sall jëm ci élection 2024 parce que li ma gëm. te di ko doxe mooy ñun en 2000 makki mooy suñu candidat loolu leer na ñu ngi jublu ci parrainage bi la ñu nekk instant bi mais aussi accompagner les jeunes à ce que ñoom ñu xam ne le président est là pour eux donc maa ngi sant ñëpp di la remercier Abdou Khadir réew mi moom ñu ngi leen di wax dinañ fi ñëwaat ci d'autres questions peut-être gudd na mais dinañ fi ñëwaat d'autres di wax la Sénégal ñoo ko bokk nañu wàcc tempérament yi nañu wàcc xol yi politique am na opposition am na mais ñaari côté yépp ñu dal ñu xam ne ñi toog seen kër di ñu seetaan di ñu déglu ñoom aussi suñu ay nawle lañ te gënuñu ëpp ñu leen xam-xam ëpp ñu leen njàng ëpp ñu leen dara mais ñoom dañoo opté wul def politique donc ñun aussi nañu ànd ak ak 58 pour cent yi yi fal président Macky Sall aussi ñi nekk ci réew mi ñu ngi leen di wax ngeen préparer pour 2024 pour que ñu leeralaat carte gi affaire yi jeex merci beaucoup. jërëjëf Amy Amel Top euh, moo jiite ndaw yi euh, COJER yu jigéen yi ak plateforme des jeunes filles dynamiques de la république nekk membre ACCT moom la ñu invité ci rajo Rewmi FM jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba samedi bi di bi di ñëw incha allah. jàmm ak jàmm di bi di ñëw incha allah. jàmm ak jàmm di bi di ñëw incha allah.